ginnaaw loolu yeesu taxaw ca kanamu boroom réew ma boroom réew ma laaj ko ndax yaa di buuru yawut yi yeesu tontu ko ne wax nga ko waaye tontuwul dara ca la ko sëriñ su mag sa ak njiit ya jiiñ noonu pilaat ne ko xanaa dégguloo lépp li ñu la jiiñ waaye yeesu tontuwu ko ci dara ba tax boroom réew ma waaru lool ca màggal gu nekk nag boroom réew ma daan may mbooloo ma ñu tànn kenn ca ña ñu tëjoon mu daldi leen ko bàyyil fekk booba amoon nañu ku ñu tëjoon ku siiw te tudd barabaas bi nga xamee ni daje nañu nag pilaat laaj leen kan ngeen bëgg ma bàyyi ko barabaas walla yeesu mi ñuy wax kirist ndaxte xamoon na ni kiñaan rekk a taxoon ñu jébbal ko ko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 mu daldi fab ndox raxas ay loxoom ca kanamu mbooloo ma ni leen set naa ci deretu ku jub kii nu ngeen xam def leen ko ñépp tontu ko na deretam dal ci sunu kaw ak sunu kaw njaboot noonu pilaat bàyyi leen barabaas mu dóor lu yéesu ay yar jébbal ko ngir ñu daaj ko ci bant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 di ko xas noonule la tàmbalee digg bëccëg ba ci tisbaar réew mépp lëndëm noonu ci wetu ñetti waxtu yéesu daldi woote kàddu gu dëgër naan eli eli lama sabaktaani liy tekki sama yàlla sama yàlla lu tax nga dëdduma ñenn ña ca ña fa taxaw nag bi ñu ko déggee ñu ne mu ngi woo yonent yàlla iliyaas ca saasa kenn ci ñoom daw jël aw sagar capp ko ci bineegar mu teg ko ci kaw bant jox ko ko mu muucu waaye ña ca des ne bàyyil nu seet ba xam Iliyaas dina ñëw musal ko noonu yéesu wootewaat ak kàddu gu dëgër delloo ruwaam yàlla ca saasa riddoob barab bu sell ba ca kër yàlla ga xar ñaar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 ca bés ba topp bésu waajal ba sëriñ su mag sa ak farisiyen ya dajaloo jëm ci pilaat ñu ne ko boroom réew mi fàttaliku nanu ne ndaxkat booba waxoon na bi muy dund naan gannaaw ñetti fan dinaa dekki danoo bëggoon nag nga santaane ñu wottu bàmmeel ba ba am ñetti fan ngir bañ taalibeem yi ñëw sàcc néew ba te yégle ne dekki na bu ko defee ndax bu mujj boobu dina yées bu jëkk ba pilaat tontu leen am leen ay wattukat a ngi nii demleen wattu ji ko ni ngeen ma ne noonu ñu dem tëj bàmmeel ba bu wóor ñu tey ca doj wa màndarga teg fa wattukat ya